salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay boo wér di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di ñaan waay leen te ma leen mos a waa bu baax baax waa 15 di ziar ku nekk si biir rek bépp détenu fu mu nekk maa ngi leen bëggee bu baax a baax di leen ziar jox sa wàccuwaay di wax na tey nag émission seet si mbër seet si xale seet si ndaanaan kan la ñooy Yaxi Bambilor fa Atlan Major nuyu naa la. Eh, Idi delloo ziar ginnaaw bi ñu yàlla ñu ngi julli si yonante bi di nuyu suñu ñaari waajur di nuyu monde entier di nuyu monde làmb quoi. Yaxi Bambilor lan moo ko dugal si làmb màgg bëre la wala dafa juddu fekk ngembali si kër gi. waaw Yaxi Bambilor du màgg bëre judduwul fekk ngembali si kër gi Yaxi Bambilor. amaana géwal la doomu buur géwal di sëtu Ndeye Ngom Ba Milor Ndeye Ngom Ba Milor moo jur sama waajur bu góor man Mbissane Ngom bi way taaru Sénégal mooy sam suñu waa kër dañuy tëgg dama judd nag fekk suñu waa kër nekk si ambiance ñii di tëgg ay làmb ñii di way ñii di fecc mooy loolu yàlla natoo ma làmb ma bëgg ko amaana bi may dugg si làmb nag boobu xale bu tuuti laa ko à l'âge de 16 ans 17 ans maa ngi mbapat ay 2010 maa ngi fii quoi yaxi Bambilor lan moo indi tur bi yaxi Bambilor. waaw yaxi Bambilor amaana bi muy bëree Mbapat Garga Mbossé la ko ñëpp xamee. garga waaw Garga Mbossé la ma ñëpp xamee moom laa ubbee Mbapat ak yëpp mais bi ma tolloo si arène nag sama tuur laa andi dëkk Bambilor aw ma lu dul Bambilor Bambilor mooy sama fief Bambilor mooy sama France mooy sama États-Unis Bambilor rek laa am moo tax ñu may woowee yaxi Bambilor. dëgg ak yàlla ak sama maam Ndeye Ngom Bambilor moo indi tur boobu. jaxe tey mbapat fan nga ëpp li nga mbapat mbapat Sangalkam mbapat naa fa lu bari sax Bambilor fii nii mbapat naa fi lu bari zone bi zone bi Sangalkam mbapatu 4 avril yi maa ko toj yi amoon avance waaw yi amoon si kaw tali bi arrêt 79 bi mhm. toj naa mbapat yooyu Sangalkam si biir tamit Sangalkam neuf mbapat laa fa jël neuf tournois neuf tournois si Sangalkam rek te waxaguma yeneen dëkk yi Sangalkam neuf tournois laa fa gañe ay fa Faye yëpp ay Papa Yada Abdou Gueye bu Songaan Gueye ñoom ñëpp xamante nañ laale nañ foofu noonu dañ waaw billaahi jàmbal yàlla na ko yàlla yërëm oyofal suuf si kawam bàyyi fa la borom baax la ko waaw gorom 2 mbapat naa fa déen déenu gaaroo gaar waaw ñaari déen yëpp déeni Malick Gueye waaye mbaam ngënduuf mbéy mbëtë gorom 3 gorom 1 bayax cëddeem kër mbir kër musa 50 pour man dama mbapat sa waay damaa mbapat kër musa kër musa waaw mbapat naa fa ay petit baabooy gars yi noonu yëpp bëri naa ñoom ak ak dem si ñi xamul kër musa mooy fi mu waani nekk waaw ak ak mbay jee mhm. mbay jee tukki na léegi waaw tukki na léegi jiili ay ay mbëru sebi bi Balde ay Balde ñoo ñëpp mbapat nañ foofu noonu waaw. dañu mbapat waaw ñoom ñëpp mbapat nañ non ñoom nag ñoom bi ñuy bëre luur man maa ngi bëre lese. Hmm. boobu maa ngi bëre lese. si mbapat si mbapat ñan nga fi daan nga gis leen si arène bi ñuy pourvu wala ñoo xam ne daan na nga leen gis leen si arène bi ñuy pourvu wala ñoo xam ne ñoo la daan gis leen si arène bi ñuy pourvu. bëri na bëri na ñi nga xam ne daan naa leen ñuy gis si arène bi ñuy. kan ay mbëru kër Mbaye Fall yi booy seen tur yi laa dul jaabu ak euh, nuñ koy waxatee booy tëngee ci mais am na si ñoo xam ne tey jii nii léegi xam rek. làmb waaw dox na bañ. dox ba ngeen bëree. waaw pour ñuy seetaan bokk internet yi seetaan Major xam ne ah kon kat Yaxin Bambilor daan na diw ak diw la. Papa Yada. Papa Yada ndeysaan yàlla nga yàlla yaram daan naa xam mbapat daan naa booy Rio kii nu ñu koy waxatee Martin ñu ngi koy wax léegi doomu Tëngéej. doomu Tëngéej laalante nañ mbapat ay fëri fay bu Tëngéej comprendre nga. bëri na de sa waay Salif sama doom ndey la maa ngi koy ñaanal kooku sam waay la léegi laay dégganteeg moom démb si guddi billaahi sama gaañ la mu may ñaanal laala nan ñaari yoon ñaari nan ñaari yoon yàlla def ma am ndam si kaw mais nag manuma ko champion ngi noonu barki Serigne Touba te maak moom dañoo dem ba seexal lu dul làmb ko waa ay doomu nday lañ barki alxuraanul karim moo tax duma ma bëgg di wax si moom. bu songaan ngay ñu ngi leen nuyuwaale Pape Borom 11 combats 10 victoires la am laa su ma juumul la ñàkk mais. Mbacke Faye ko daan booy moo man booy billaay wal kitaabi. booy sa sa nga waaw mais champion la Salif champion la de. waaw billaay wal kitaabi mais ñun nag dañoo mën a daan ku ne si làmb saa waaye ñun moom. ay Pataar Gosaas Pataar Sine. dëkk booli Pataar. mbapat bi ma fa bëre ñaari mbapat yi ma fa bëre tournoi bëre dóor la. waaw loolu laa la bëgg leeral ko gars yi ne Pataar. Mhm. foofu la booli Pataar dëkk. Mhm. amul bëre simple. Mhm. bëre dóor la. premier tour ba final bëre dóor. boo teppee ko da ut ndox ak xorom sël mu ñëw bëriwaat. kon man yàgg naa si yow xam nga ni mu demee yow Idi doo ngaaxa yow xam nga ni mu demee si làmb ji barke Serigne Touba jël naa fa nag jël naa fa enveloppe. daan nga wàcc si simple bi. fii. simple bi waaw. mosuma fa ñëw simple quoi. àll bi bi moom maa ngi génn di bëre. ak yéen dëkk. boobu noonu dem naa fa Mbapat dem naa Gandiaye Gandiaye bëri naa fa ak dëkk bi ñuy wax euh, Simal Simal. Simal waaw. simal bëri naa fa ak côté yeen bi ndaayaan bi waaw waaw sama gars yi yéen ñi seetaan suivre Major TV kii la ñuy wax champion Yaxi Bambilor te ñu ñëw waa Major TV ñoo fan ñëpp Bambilor seet si Yaxi ba nga wax si boppam ndaanaan yi mu daan ku si ndax su nee pa ndeysaan dem si yàlla si papa yadda ku ko xam-xam ne ndaanaan kullu fadlin la yàlla suñu borom yërëm te xaaree ko si àjjanay firdawsi nga ne mun teg mu Tidiane Faye bu songaan gay nga xam ne 2013 da nga dégg mu ñëw mi premier combat am arène moom Yaxin Bambila daan na ko aller tour daan bëri daan bokk ak journée ay ñoom Boy Balde ndaanaan yooyu tey dañuy ñëw si lutte avec frappe sa premier combat arène fan la woon ak kan moo ko tëgg at kañ la woon. sam premier combat arène mu ngi doon 2016 barñe 2016 la woon mais ki tëgg euh, mbapat bi jagsi la woon defe naa làmb jooju parce que dama bëre fii nii dama am licence ñu tur tëgg benn tournoi Bambilor ci terrain football bi gala de bu Tëngéej Raskas bu Songane Gueye ak jam kii Tafatine bu jamñaajo ñaajo bu Bayax comprendre nga laa Linguère. Tafatine ban bi mi waaw ponkal mi kooku la woon. ak euh, mbëru kii bi ak mag gaaroo gaar nga gal waaw ak huit mbër la woon. Mhm. yaxi bàmmiloor gaaroo gaar Tafatine bu jam ñaajo laa Linguère. ak euh, Raskas ak euh, kiiwut mbëru déen bi Robert bu bayax ak euh, doomu déen waaw déen bi si kaw quoi. nga amee licence foofu ñooñu nga njëkk laale. non non boobu amaguma licence mbapat boobu dama kaa jël rek. Hmm. ñu yóbbu ma utal ma licence si lundi bi waaw. premier combat arène sama premier combat arène maa Ndiaga Diop la woon Boston. doomu Pape Diop man la njëkk a moom mu nekk premier combat man ma nekk sama premier combat ñi waaw mu njëkk ma nax daan ma ñu bëri combat bu neex ba amateur yëpp kontaan ma ñàkk làmb jooju. sa sama deuxième combat bi ma ñëwee booy jën laa kii laa ko booy géey bu les tigres. booy waaw si journée rek rek ak kale bala Gaye Junior bu Lamsaar. ma am ndam si kawam. troisième sama troisième combat ma bëriwaat ak booy booy booy jën les tigres. yaa ngi les tigres. waaw les tigres ñaari mbër laa fa. tey génn goo waaw ma amaat fa ndam. sama quatrième komba ma bëreeg booy séeréer bar ñëwaat. waaw ma daan ka par ma gaañ ka waaw ma gaañ ka ñu jox ma victoire. cinquième sama cinquième combat laa bëre ak booy daan teg ñàkk ko. waaw maa ngi bëreeg moom Demba Diop waaw maa ngi bëreeg moom Demba Diop ma ñàkk ko. bi nga fa jugee ma jël Tidiane Faye Bambilor daan ko. après ñu joxaat ma bébé rek ma daan ko. rek man huit combat laa bëre six victoire deux défaites. Mhm. ndax ku la Ndiaga Ndiaga Diop moo la daan. waaw ak booy daan teg maa leen di nuyu au ma déggee sa wax ñaar ñi nga dégg mu ñëw ñëpp biir Pikine lañ dëkk. waaw biir Pikine lañ dëkk waa wax nga dëgg biir Pikine lañ dëkk parce que Ndiaga waaw. boson ak booy daan teg wax nga dëgg. la nekk kii Ndiaga Diop waaw kii écurie fële Pikine mbooloo. kon daal ma déggee ñi leen tere woon a reer ñëpp benn quartier la Pikine la dayoo dangereux mais dinaa fa duggaat. kon sa xel dafa nekk. waaw sama xel nga fa moo tax combat bii nii maag Boysil ñoo ko waroon bëre. Boysil bu fa la dem nañ ban taxaw bañ juboo bañ waxtaan ba gisante promoteur bi déggoog man déggoog moom mais après nee nañ ma seen waa écrit la xoo affaire yooyu noonu après lañ ma jox bébé diwaan sax. la ma xam si bébé diwaan la mu mën a xeex la mu mën a bëre rek. fii la fekk mbaax.

fan nga wékk na fan moo ne ma. Serigne Saliou laa yaa. barki démb signature nga ne ko yaa ma mag ma ne la fan la ko wékk. moo ne ma paa nga ma ne ko yaa ma mag. idi man xale laa boo ma xoolee xam ne kii booy la boo bébé diwaan taxawee ma taxaw nga xam ne bébé diwaan moo mag yaxi Bambilor mais ay aas ak du si làmb sax Eumeu seen a ngi nii bi muy dégg daal li fekke na mu nekk fin de baa booy bi muy gis nga nu mu demee. loolu du si dara sax. booy sëy waaw booy sëy xam nga mais ay mbër yi da ngay dajeeg mbër mu mag la foofu naan kii man paal yow paa nga man xale laa non xale yi ñun seen ginnaaw yaay ñun ñëpp ay jeunes la ñoom maase wala liñ magantee bëriwul. mais man ku yow ko moom. bébé diwaan moo moom wax bii nii. dégg naa nag démba sa open press am nee na daf may dóor dam du bëri seexul ak man bëre dóor lay seex ak man. nan seexul ak yow bëre da lay duma léegi nañ teg ma yow na na na nga nga teg mu teg cent mille ma teg cent mille. waaw léegi man Bébé Diwane dinaa indi cent mille franc teg ko si table ji nga jox idi cent mille franc ñu taxaw ma ak yow weccoo ay ku xeex. Diop indi Ndiaye am ñas indil ngoom am ngoom indil ñas. barki Serigne Touba Mba maa ko gën a ñime xeex. noo yéex noo yéex bu ñu déggee dëgg. yow yow nekkoo kuy jaagaag. bébé diwaan. billaahi wal kitaabi diwaan bu ko neexee ñu xeex 30 minutes. 30 minutes bu léegi combat bi. da ñu def ko MMA wala boxe. dangay ngay wóor yow xam nga ma. da ngay bàyyi seetaan nga samay làmb. moom tamit seetaan naa waaw bébé diwaan du xeex xeex bu sax de bébé diwaan day woote xeex ba pare ruuxaat. waaw da lay seet da woo ci fetal fit. voilà man xam naa bébé diwaan. je te connais très bien ay bataille sylocosique ngay def xam naa la bu baax. déggoo ma de. yee yaxi mooy wax ak yow. sarax bu xeexee dama koy dóor mu daanu bu bëree ma daan ka maanaam bébé diwaan lu mu def daanu si kattanu yàlla barki Serigne Saliou combat bi sama kombaa la te incha allahu rabbi di nga ma seet si waat ne ma waxoon nga ma lii nii. li ngay wax nii li ngay wax nii loo gëm la wala looy wax la nii rek. li ma gëm la. idi man bu fekkee entraînement maay entraînement bu fekkee ñaan maay ñaanlu bu fekkee kàttan yàlla suñu borom suturaal na ma si bu fekkee jàppale suñu borom mu may dimbali. dama bébé diwaan